asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wal xaq sax dañuy leen di nuyu ñu leen di siyaare bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ñaanal ñëpp kooru jàmm yal na yàlla nangu koor yi yal na yàlla nangu naafile ak jàng alquran yi macha allah e, waa ëttu alxaq sabit ñu leen di beral nuyoo di leen di beral ñaan yal na yàlla e, defal leen defal leen jàmm yaa rabbi ne leen yàlla defal tawfiq ak shadaad ak rasaat dara ji tey ñu ngi am kontaan di dalal benn kàngam ci kàngam yi muy sëñ Adama Diop nit ñi xàmmee ko ci biir groupe bi ci ak dalam ci xam-xamam macha allah tey mu war a ñëw ak ñun ci benn mawdoo bu am solo muy ilmu usulul fiq bu ñu waxee fiq kii di di jàngale lii di àtte sharia yi eh, usulu fiq mooy li nga xam ne mooy jàngale naka la ñuy ballaloo Eh, attee fiq yooyu naka lañ koy ballaloo ci texte yi parce que am texte rek doyut waaye il faut nga xam texte bi eh, fi mu orienté wu jëm ak li nga xam ne moom lay wax dëgg-dëgg ay jubluwaayam eh, loolu mooy tudd elmu usulul fiq ci gàttal bon loolu la ñuy xamal fan la jugee fan la sosoo ci imaamu Shaafi'i la wala ci imaamu beneen la jugee la la moo ko commencé ak lan lay wax ak ci lay ta téere yi nga xam ne taalaf nañ ko ci démb ak tey yi nu demee moom la euh, sañ oustaz aadama Diop macha allah di ñuy waxtaanal ñu am kontaan lool ci dalal ko macha allah muy borom xam-xam bu ñu ràññee ci groupe bi ci ak dalam ak teeyam macha allah ñu ngi ko nuyu bu baax nag da ko remercier ci euh, lim nangu suñu invitation da ko ñëpp bàyyi xel. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu may ko noppi ak euh, jox ko suñu xel yépp بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي لندي وخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلن يو دلن يانا يالا جامو ديكو يانا di feddali sunu cofeel ak sunu kóllëre ci waa groupe bi nga xamante ne ñoom ñooy alxaqu saabit jiital ci nuyo boobu sunu imaam sunu sëriñ imaam Pape Ndiaye euh, di ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla jàmm di ñaanal waa groupe bi yëpp taxawaay bu rafet bi ñu am ci dooleel xam-xam ak tasaare ko yal na leen ko yàlla sunu borom fay. di ñaan yàlla weeru koor bu màgg bi lépp luñ ci def ci ay jaamu yàlla ak ci ay ngëneel yàlla na ko suñu borom ful te nangul ñu ko bu loolu weesoo ñuy am kontante ak mbégte lool ci euh, occasion bi ñu may ci ay ëttu boroomi xam-xam ak ay gëstukat waaw ñun ñi nga xamante ni Euh, sunu xam-xam lu xeebu la lu néew la ñu may ñu ci benn occasion bu ndaw rek buñ mën a fësalee lenn ci suñuy xalaat ak sunuy kàddu te loolu nag muy doon sag bu rëy rëy rëy euh, ci groupe bi nga xamante ni group la bi nga xam ni dafa am euh, ab xar kanam bu mu amee mooy ne nit ñi fi nekk membre yi fi nekk ci groupe bi ñoom ñëpp seen i naanuwaay wala seeni delluwaay wala seen i e, fa ñu jokk e, yu ay ay jokkukaay yu fasantikoo la waaye teewul ni e, ñu ngi dund si jàmm ak si dal ku nekk di fi joxe xalaatam ku nekk di fi joxe gis-gisam ku nekk di ci gis boppam loolu nag avantage bu rëy rëy rëy la Euh, bi nga xam ni groupe bi am na ko te group yu bare bare bare tey loolu jafe fa maanaam ay nit yu bari bokk ay naanuwaay bokk ay ay gisin yu wuute bokk ay ay ay am ay naanuwaay yu wuute am ay gisin yu wuute am ay féete yu wuute waaye teewul nii dañuy dund si jaamu di dund si dal teewul ni dañuy dundul li nga xamante ni mooy xam-xam loolu tey boo ko dee xool lu jafe la ci yenn yenn yenn place jafe la si jamono ji sax d'une manière générale waaye lu jafe la ci eh, ki xam tey groupe yi ni muy tëddee loolu nag tey mën nañu wax ni avantage la bu groupe bi am ñu ngi ñaan yàlla loolu ñu gën ko sàmm gën ko gën ko dooleel ba mu gën a jëm kanam comme ni ko sunu sëriñ imam Pape Ndiaye waxee tey eh, li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee moom mooy taarixu ilmu usulul fiqh taarixu ilmu usulul fiq maanaam cosaanu xam-xam bi ñuy tuddee usulul fiq ak njalbeenam loolu nag suñ ko waxee nekkul ni dañuy wax ci jëmmi usulul fiq ak ay mabaaxisam ak ay mawduaatam ak ay masailam ak ay xilaafaatam yi ci am nekkul ni ci loolu la ñuy wax ndax loolu faram fàcce ya xam-xam la bu yaatu ay bunt la yu fasanti ko bunt yu ci nekk am ci ay masa ilam bunt yu ci nekk am ci ay e, xilaafaat yu ci am loola tey yaakaar naa ci buntu jàng lay gën a amee njëriñ ko ci buntu e, li nga xamante ne moom mooy exposé moo tax tey ñun exposé bi nekkul ni dañuy wax ci ilmu bi ci boppam waaye dañuy wax ci taarixu ilmu bi ilmu bi naka la naka la sosoo loolu nag téewul ni danañ def benn muqaddimo bu ndaw ci xam-xam bi euh, ak li nga xamante ni moom xam-xam bi ci lay évoluer ci lay ci lay ci ci lay yëngatu li tax ñu tànn euh, mawdoo bi euh, ndax benn xalaat la bu ñu dikkal ginnaaw bi nga xamante ne weeru koor wi teru na ñu gis ni mu assasa bële di tudd alwafa ñoom comme niñ koy defee nii rek ci jotaay yi ñu koy defee ci dundal xam-xam ci weeru ramadan bi ci ci groupe yeeg yi ni mel ñu leen ci sant ñoom di leen ci gërëm ma gis ni ñoom euh, seen première seen jotaay bi njëkk bi ñu ubbee mooy dañoo wax ci usulul fiq bi lañ waxtaane ku ñuy wax yaakaar na sëriñ Mouhamed Mbacke moom ko def ca ca ca muassasatul wafa macha allah mu yaatal ci lu baari ci amay point yu bari yum ci yaatal ci usulul fiq ci mabaxisam ci mawduaatam ci fawa fawa fawaiduhu njariñam waaye comme exposé la doon def mais mun ta matal lépp waaye am na point yi nga xamante ni junj ko waaye xëy na temps bi ak jamono bi ak waxtu wiñ ko mooy tënk na ko ba mënu faa yaatal si laa amee xalaat ni kon point bi nga xamante ni gis naa ne junj na ko te point bu am solo la mais xëy na temps bi mayu ko mu yaatal ñu ne xaaral ñun tam ñu développé foofu léegi suñ développé foofu su ko defee mbir mi day daal di nekk day am complementaire maanaam day day day day day dajaloo su ko defee keneen mën na ñëw sax beneen jamono mu mu mu def exposé mu yaatal ci li nga xamantene moy al ahkaamu shar'iyya yi ya ak taklifiyya yi mu def ci 5 ahkam taklifiyya yi mu yaatal ci al al waajib wal haram wal mubah nga ak ak mandub dégg nga ak al mustahab nit ñëw yaatal fofu def seen alaqa keneen mën na ñëw benen jamono mu def exposé ci al ahkam al ahkaamu shar'iyya al wadaiya yi mu yaatal ci keneen mën na ñëw mu def ci ak dilaalatul alfaaz mu mu yaatal foofu su ko defee comme xam-xam bu yaatu la kenn ku ci nekk rek jël ci benn pàcc bu ko defee mu jàngat ko su ko defee bu jeexalee ñu def lu ñuy defee complémentaire mu nekk wenn say wi nga xamante ni nit ki mën na koo di jëriñoo kon ma gisoon ni point bi jar na yaatal muy taarixu ilmu usulul fiq maanaam buñ ne usulul fiq lan mooy lan mooy jaar-jaaram xam-xam bi fan la jóge parce que loolu lu am solo la nga xam euh, cosaanu xam-xam bi loolu dana la may nga xam yan xam-xam bi nan la juddoo nan la màggee nan la juddoo nan la nan la raamee nan la màggee nan la demee ba àgg ci li nga xamante ni mooy njombaxtalam ba mat ba nga xamante ni dañ naan kii kat ku mat la ko muskalaf la waaye tamit dana la may nga xam ñen ñoo ci bind dana la may nga xam aussi tamit ñen ñooy boroom xam-xam yi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey ci xam-xam bi waaye xam-xam xam taarixu benn xam-xam benn ilm nga xam taarixam nga xam cosaanam nga xam jaar-jaaram dana la dana la mën a may tamit nga xam cosaanu ab wax maanaam benn gisin benn wax benn xam benn benn benn gisin benn masala kañ la judd exemple ndax ci xarnu ulaa la judd wala ci xarnu saani la judd war na ci xarnu saalis mi wala ci xarnu raabi bi la wax ji commencé judd loola dana la mën a may nga mën a valoriser wax ji tey boo déggee benn wax nga xam ni wax ji mag ñi daawuñu ko wax ñu jiitu ci xam-xam ba nga xamante ne ay boromi xam-xam lañu woon ay kàggu lañu woon feesoon dell loolu ñooñu daawuñu ko wax kon wax ji naka la leen mën a rëccee loolu dina la mën a tax nga mën a peese wax ji xam ban wàccuwaay nga koy nga koy wàccee ilmu usulul fiq nag mbokk yi ilmu bu màgg la ilmu bu bu rëy la ilmu bu am dayo bu yaatu la ilmu bu bari ay njëriñ la ndax su fekkente ni fiq fiq bi nga xamante ni tey moom moo muur sunu dund lépp fiq la jullit bi lépp lu muy def rekk fiq la la ko dalee ci yéene ya la dalee ci ahkam tahaara ya la dalee si julli ga la dalee si njàpp ma ak set ma ak laab ma la ko dalee si julli ya ak atte yu fasantikoo yu ci nekk la dalee ci aji ak atte yu fasantikoo yu ci nekk ak woor ah ak azaka nga jógee foofu nga jëm ci li nga xamante ni moom mooy njënd ak njaay al muamalaat nga jógee foofu ñëw ba ci ba ci li nga xamante ni mooy dundinu kër gi sëy takk fase ak yooyu yëpp nga xamante ni tey dafa envahir dund doomu aadama bi dafa envahir dund jullit bi nga xamante ni lépp lu mu def rek fiq mu ngi ci kanamam atte yi mu ngi ci kanamam loola tey solo si mu am solo nga xamante ni fiq bi moom moo lay wan li nga xamante ni mooy ibaada bi jaamu yàlla bi nga xamante ni yàlla suñu borom sas na la ko jaamu yàlla googu moom mooy lan jaamu yàlla googu ban atte la joxe xaraam la wala waajib la wala mustaxab la wala makruh la wala mubaax la fiq bi moom moo lay won loolu fiq bi mooy taxaw ne la lii ngay def xaraam la wala lii ngay def makruh la wala lii ngay def waajib la wala lii ngay def mustahab la wala lii ngay def mubaax la kon fiq moo lay wan lan la yàlla namm ci jaamu gi jaamu gi lan la lan la ci yàlla namm fiq bi moo la koy wan fiq bi moo lay wan ni yàlla li mu bëgg mooy nga def lii waajib la nga def ko mu nekk force fiq bi moo lay wan ni yàlla moo yàlla kat li mu namu mooy lii du force waaye boo ko defee ngëneel la fiq bi moom moo la koy wan moo naan ne lii mustahab la wala mandub la fiq bi moo lay wan ne ni ah yàlla kat li mu namm mooy ni lii nga bàyyi ko définitivement forcément mooy xaraam la wala fiq bi moo lay wan ne la a ah, lii kat yàlla lu mu ci namm mooy boo ko boo ko bàyyee am tuyaaba waaye boo ko defee doo am bàkkaar mu ne la loolu kon makruh la fiq bi moo lay won ne la ah lii kat boo defee am tuyaaba boo boo defee am boo soo ko defee wala nga ñàkk kaa def yëpp amoo ci amoo ci ay daan ñu ne la loolu kat mu baax la fiq bi moom moo lay won loolu man kon fiq bi moo lay won li yàlla bëgg mu nekk kon xam bu rëy xam-xam bu màgg xam bu am dayoo parce que moom moo ñuy firil yàlla lu mu bëgg li yàlla bëgg lan la waajib la li yàlla bëgg lan la mu baax la li yàlla bëgg lan la makruh la li yàlla li yàlla li yàlla li yàlla li yàlla li yàlla bëgg ñu bàyyi ko lan la loolu xaraam la fiq bi moo ñu moo ñuy àggale foofu moo ñuy won foofu kon fiq lu ama am am solo la waaye fiq bi nag li muy am solo am solo am solo am solo li ko permettre loolu ba mu mën faa àgg ba mu mën a joxe xukm boobu ba mu mën a joxe xukm boobu ne waajib la ba mu mën a joxe xukm boobu ne mubaax la ba mu mën a joxe xukm boobu ne Euh, xaraam na ba mu mën a jox xukmu boobu ne makruh la kon fiq bi li ko mën a permettre ba mu mën a génne ab xukmu ne masala sàngam lii waajib la wala masala sàngam lii ab mandub la wala masala sàngam lii xaraam la walla lii makruh la li ko mën a permettre ba mu mën a àgg foofu mooy xam-xam bu ñu tuddee usulul fiq parce que usulul fiq moo koy tegal ay qawaid moo koy tegal ay règle tegal ko ay méthode règle yooyu ak méthode yooyu moom faqih bi wala fiq su ñëwee méthode yooyu lay utiliser jël ko daal di koy appliquer ci ay ahkam appliquer ko ci ay buntu yu wuute appliquer ci buntu salaa appliquer ko ci buntu az zaka appliquer ko ci buntu al hajj bu ci nekk mu appliqué ko wutal ko ab dalil moo tax nga gis téere fiq yi nekk ay téere fiq yi nga xamante ni dafay yaatu ay junni junni junni masala nekk ci parce que qaayida bi la faqih bi di jël daal di koy appliqué ci masail tafsiliya yi wala masail juziya yi faqih bi moom moo koy wan qaayida bi faqih bi mooy ñëw ni yàlla suñu borom lay ni aqimu salaa taxawal leen julli loolu lañ lañ ci xam ñu ci dara usulul fiq mooy ñëw ne aqimu salah al amru lil wujub ne ko ndigal dal jëfe la ndigal jëfe la su ko defee faqih bi bu ñëwee daal ni comme ndigal jëfe la te aqimu salaa ndigal la kon asalaatu waajib la kon kon julli julli waajib la mu daal jël qaayida boobu nga xamante ni moom usuli bi moom la teg ne al al amru lil wujub mu jël ko nag yaatal ko ci mbooleem bunti sharia yi masala bu nekk rek mu yaatal ci qaayida boobu masala bu nekk rek mu jël ko yaatal ci qaayida moo tax ñu ne la faqih bi moom moom day évoluer ci ahkam tafsiliye yi détails yi parce que qaayida bi lay jël masala bu nekk mu teg ko ci qaayida bi bu jël masala bu nekk mu teg ko ci mais faqih bi moom ci masail kulliye yi masail généralité yi masail ijmaliye yi moom foofu lay développé xam naa ni loolu dinañ ci dinañ ci ñëw si kanam kon li ñu bëgg a wax moom mooy fiq lu mu màgg màgg màgg ak lu mu rëy rëy rëy ak lu mu am dayo dayo moom fiq nga xamante ni moom moo ñuy wan li yàlla bëgg fiq boobu daa am ci xam-xam bu mu basé daa am ci xam-xam bu mu déparé wu te xam-xam boobu ay qawaayid la ay méthode la ay manhaj la yi nga xamante ni moom fiq bi si la basé wu pour mën a yaatu kon xam-xam boobu ñuy tuddee xam-xamu usulul fiq xam-xam bu am dayo la ci lislaam ndax su fekkee fiq am na njëriñ am dayo ci lislaam euh, asaas ba li nga xamante ni mooy fondement ba li nga xamante ni mooy caabi ba li nga xamante ni mooy bunt ba mooy xam-xam bi ñuy tuddee usulul fiq xam-xam bi ñuy tuddee usulul fiq nag comme ni fiq amee ay mawduaatam amoo amee ay amee ay ay mawduu yi nga xamante ni am ay masala yi nga xamante ni moom lay traité xam-xamu usulul fiq aussi tamit am na ay masala spéciale yi nga xamante ni moom lay traité waaye loolo pour ñu xam ko loolu foofu ñu delluwaat ci biir xam-xam bi tëral li nga xamante ni mooy xam-xam bi masala par masala si ngay gën a ràññee li nga xamante ni moom mooy eh, teg baaraam duut baaraam ci masaa nga xamante ni moom la usulu fiq spécialité wu ak masaa yi nga xamante ni moom la fiq spécialité mais nekkul ni loolu moom moo li nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg kon usulul fiq suñ ko doon taarif boroom xam-xam yi taarif nañ ko ci ñaari anam anam bu njëkk bi mooy ñu séparer ko baat ci baat parce que nañ ñu usulul fiq maanaam usulul fiq baat ak ba ñaari baat lañu boole léegi nag ñu pour ñu xamle ko am na ñaari anam yuñ koy taar yuñ koy taarifee ñaari anam yi mooy baat bu ci nekk ñu taarif ko beneen anam yi mooy ñu boole ñaari baat yëpp jox ko benn tur da di koy taarif loolu ci misaal tey tey buñ ne woon président Ablaye Wade président lay Wade kon foofu mën nga fa am ñaari baat mën nga am président mën nga am ab Abdoulaye Wade nga taarif président nga xam lan mooy président spécial taarif ko te président mooy njiitum réew ku ñu fal ci am réew votel nangam nangam nangam nga jiite am réew loolu mooy président ñu ne la Ablaye Wade nga ne Ablaye Wade tur la kon taarif nga ko baat baat bu ci nekk taarif nga ko séparé ko waaw bu ñu la ko beneen beneen anam bi beneen taarif anam bi mooy nga boole ñaari baat yëpp président Ablaye Wade nga boole ko taarif ko nga ne président Ablaye Wade kat nga nga boole nga bo ñaari baat yi président Ablaye Wade kat nit la ku judd année tel waaw moo ngi dund ba léegi am na ñaata doom jiite réew mi am na ñaata at loolu mooy nga taarif ko maanaam boo ko boolee laqaban kon noonu la ko boroom xam-xam yi taarifé mais taarif bu njëkk bi mooy ñu dellu ci point bu njëkk bi mooy nga taarif usulul fiqh ah bi'tibaari mufradihi maanaam ci ci xàjjale nga taarif ko détail baat bi benn par benn loolu moom benn pro benn point bi nga xamante ni moom lañuy njëkk a déparé mooy taarif usulul fiqh nga définir lan mooy usulul fiqh baat par baat buñ koy taarif ci definir ko ci baat par baat dangay gis ni euh, baat bu njëkk bi mooy usul mooy al asl mooy mooy aslu suñ ko waxee boroom xam-xam yi déggee nañ ko déggiin yu bari istilaaxan ak luxatan euh, baat par baat mooy al aslu cosaan mooy lépp lu nga xamante ni ci moom la ñuy tabaxee leneen wala lépp li nga xamante ni ci moom la leneen bànqaasoo ñu ne loolu moom mooy aslu mooy cosaan comme tey tabax tabax am na li nga xamante ni tey tabax bii nga gis mu taxaw am na ci li nga xamante ni ci moom la tabax bi déparé ci moom la tabax bi déparé loolu moom mooy aslu loolu la ñu tuddee fondement kon dafa am tabax am fondement lan mooy fondement fondement mooy li nga xamante ni ci moom la tabax bi jokk jëm mooy mooy aslu euh, wala ñu ne aslu mooy li nga xamante ni ci moom la leneen banqaasoo ci moom la leneen banqaasoo garab gii banqaasam yi ci lan la ci lan ci lan ci ci ci lan la ban ci lan la ci lan la bàyyeekoo ñu ne banqaas yi ñu ngi bàyyeekoo ci reen yi kon reen yi moom mooy aslu kon buñ ne asl aslul fiq mooy kon dafa mel ni ci fiq bii ñuy jàng ci ay masail ci ay ahkaam waajib euh, waajib euh, mandub xaram makruh mubaax li nga xamante ni moom mooy fiq am na fu mu cosaanoo am na am na li nga xamante ne moom mooy cosaanam kon xam-xam bi nga xamante ni moom moom mooy fiq am na njëriñ lool am na solo trop lu am dayolo waaye nag am na fi nga xamante ni moom faw nit ki balaa muy jaar balaa muy nekk ab faqih mu am fondement bu dëgër balaa nit ki di doon ab balaa nit ki doon ab mu am cëslaay lu dëgër cëslaay lu dëgër loolu nag moom mooy xam-xamu usulul fiqh kon xam-xamu usulul fiqh nit ki su ko amee su amee cosaay cosaan loolu su amee fondement boobu day mën a am li nga xamante ni moom mooy fiqh bi ñu taarifaat ko ci beneen taarif ne aslu ba tey moom mooy dalil aslu moom mooy dalil waaw al aslu moom mooy li nga xamante ni moom mooy moom mooy dalil ma aslu kaza ma as asluhu fil kitaabi wa sunna maanaam dalilam ci kitaab wa sunna as an nikaax ñu ne aslu asluhu maanaam dalilam ci kitaab wa sunna daal di indi aaya bi wala ñu indi qaayida wala ñu indi li nga xamante ni mooy mooy xadis bi da nga koy gis léeg ci téere yi ñu ne al al ziwaaj wala ñu ne an Eh, asluhu fil kitaabi wa sunna ñu de ñu daal di indi aaya daal di indi kon foofu asl lan lay firi asl fii lan lay asl mu ngi firi dalil fële asl mu ngi firi mooy cosaan mooy fondement mais fi asl lan lay firi fii dalil lay firi waaye fii boo xoolee waa taarif aslu ci moom mooy dalil moom dafa méngoo lool ak lii ñuy waxtaane tey maanaam taarifi taarifi asl xam nga fële asl dañ mooy cosaan méngoo na dëgg-dëgg ak li ñuy wax mooy cosaanul fiq njalbeenu fiq fondement wu fiq maanaam fiq mu ngi nii fondement wu mu ngi fiq mi ngi nii di xam-xam waaye xam-xam bii ñuy wax fiq xam-xam bii ñuy tuddee asl muy usul moom mooy fondement am loolu tamit ah lu méngoo la waaye tamit demaat ci beneen taarif bi tamit ni asl moom mooy dalil loolu tamit dafa méngoo ak li nga xamante ni moom mooy relation fiq ak usulul fiq parce que boo nee asl mooy dalil kon da nga naan fiq lii mooy ay dalilam kon da nga naan fiq boo nee fiq xam-xam la waa fiq yi ngay gis ni si téere yi ci masaay la ko commencé ci baabul tahaara ba ci baabul muamalaat fiq la waaye fiq bi ana dalilam ñu ne la dalilam moom mooy usulul fiq kon ngay gis ni tamit dafa méngoo ak li nga xamante ni euh, moom mooy euh, maanaam taarif bi dafa méngoo ak ak li nga xamante ni moom mooy fiq waaye aslu tamit dina ñëw mu tudd alqaida al mustamirra mooy li nga xamante ni mooy wéy nga xamante ni mooy wéy ñu koy wéyale li nga xamante ni Euh, moom moo moom moo wér ba pare wéru ñu koy wéyale moom la qaayidal mustamirra comme tey ñu ne euh, al aslu fi l kalaami al xaqiqa maanaam lay cosaan la wé la wér ba pare wér te ñu koy wéyale di ko doxee mooy ne al kalaam dafa war a nekk xaqiqa warul nekk majaaz majaaz exception lay doon mais lay cosaan lu mooy xaqiqa wala ñu ne la ah, daganal yàppu méddkat dafa mu xaalafa ak asl maanaam dafa dafa mu xaawa dafa mu ak cosaan li nga xamante ni mooy wéy yi lañu miinoon waaw maanaam daganal yàpp médd dafa wuute ak li nga xamante ni moom lañ miinoon kon foofu asla lan lay firi mooy la ñu miinoon te doon wéy foofu asla la kon am nañ li nga xamante ne asla day firi euh, day firi fondement wala aslu firi dalil wala aslu firi cosaan kon yii yëpp boo ko gisee dafay méngoo ak liñ bëgg a taarif baat bi day day méng day méngoo ak baatu aslu bi waaye aslu tamit waaye aslu tamit dafay ñëw firi li nga xamante ni moom mooy maanaam nekk euh, nekk ci côté al illa maanaam boo xamee illa li nga xam lan mooy aslu aslu mooy lan mooy ab atteb sharia bi ab masala bi nga xamante ni attem ci sharia texte da koo indi maanaam masala mi wala xukmu bi attem ci sharia texte moom moo ko indi dalil dafa am dalil bu ko indi waaye léegi nag mu amaat beneen bi nga xamante ni moom dañ koy wutal atte mais amuñu ab dalilam ñu ne loolu ab fara ñu ne loolu faral kon da gis ni ay aslu ak faru kooku ci buntu qiyaas nga koy kon foofu aslu aslu lan lay firi foofu firiwul dalil aslu foofu na day firi day firi njaal benn firiwul njaal firiw firiwul fondement mais fii aslu day wone ab xukmu bu am dalil xukmu bi nga xamante ni dalilam mu ngi fi léegi nag mu amaat beneen xukmu bi nga xamante ni moom dalilam ñëwu fi waaye léegi lan la ñuy def ñu ne léegi nañ nañ nañ nañ nañ jël atte bi nga xamante ni moo ñëw ci Euh, nañ jël xukmu bi nga xamante ni moo ñëw ci masala bi am dalil ñu jël xukmu boobu ñu daal di ko yóbbu ci beneen masala bi nga xamante ni moom xukmam ñëw na mais amul dalil ñu ne foofu kon lan la ñuy def ñu ne dañuy def qiyaas ñun loolu mooy ñu ne ilxaaqu aslin bi farin maanaam dañuy dañuy jëlee dañuy jëlee dañuy dañuy jëlee atte atte bi nga xamante ni moo nekk ci ci aslu ba dañuy jël atteb masala mi nga xamante ni moo am dalil jël ko tibb ko yóbbu ko ci masala mi nga xamante ni moom atte euh, ñëw na te amul at atte bi ñëw na mais dalil amul ñu ne kon nan lañ koy jox ñu ne dañ koy jox xukmu aslu ba waaw lu tax ñu ne dafa am benn illa bu leen boole dafa am benn benn benn dénomon dénominateur commun benn illa bi nga xamante ni moo leen moo leen boole kon foofu aslu Euh, gis nga wuute na ak eh, niñ ko taarifee woon ci li jiitu kon loolu mooy li nga xamante ni mooy benn baat bi suñ ko beree daal di koy taarif mooy aslu aslu kon ñaari baat la aslu ak fiq ñu ber benn bu ci nekk daal di koy taarif ñu taarif nañ aslu léegi mu des fiq ñu ne fiq mooy lan ñu ne fiq mooy ci luxa mooy fahm mooy comprendre comprendre comprendre dara ñenn ñi ne fiq mooy comprend daqaaqal asia maanaam nga nekk comprendre lu lu lu lu sori daal am li gars wax naan nandite maanaam nandi un nandite du comprendre rek li nga xamante ni mooy mooy mooy lu lu leer nii déedéet mais nandite day comprendre li ci gin gars yi naan da ngay li ci ginnaaw lu ñu waxul lees waxul da nga koy xam ñu ne loolu mooy am ñu am dañ ne loolu moom mooy fiq am ñu am déedéet dañ ne fiq mooy nga comprendre rek yow li ñu li ñuy wax xam nga ko loolu faqi nga keneen déedéet li mbóot li sew loolu moom mooy alfiq waaye suñ ko taarifee istilaahan nag mooy mooy fiq mooy e, nga xam at attey sharia yi nga xamante ne way jëf la dañ koy jëf ci adilla yi nga xamante ne ay adilla yu détaillé la maarifatul ahkam alcharia al amaliya nga xam attey ahkam alcharia yi atte ahkam yi nga xamante ni alcharia yi buñ ne ahkam charia yi nag kon lépp lu dul ahkam charia yi génn na xam nga boo xamee ahkam ahkam ahkam yi nga xamante ni tey euh, euh, ne glace dafa sedd safara dafa tàng loolu xok la mais loolu du xukmu shar'i loolu xukmun xissi la maanaam làmbu daj la loolu làmbu daj la wala tey nga xam ni un plus un un plus un égale deux loolu xukmu la mais loolu du xukmu shar'i lan la xukmun aqli la wala nga xam tey ni euh, garab sàngam boo ko jëlee nga naan ko sa bopp day sedd bu bu metti woon dafay sedd loolu ah, xukmu la mais du xukmun shari xukmun tajribi wa xukmun tëbbi la maanaam lu ñu lu ñu lu ñu aadawoo di def la lu nga xamante ni dañ ko tàmm di def bay gis résultat bi kon loolu tamit du xukmun du xukmun shari léegi lan mooy xukmu shari lan mooy ahka mooy fiq mooy ah maarifatu ahkaam sharia mooy nga xam ay atte nag yaatu na yenn yi ci la wala yenn yi ci ci ci ci xam la déedéet mu ne la du ci pass pass du ci xam-xam waye atte yi nga xamanteni way jëf la dang koy jëf dang koy appliquer al amaliya yu ñuy jëf comme bu ne al amaliya xam ahkam shar'iyya al amaliya kon xam ahkam shar'iyya al ilmiya da fay génn al ilmi li jëm ci walu xam yàlla ak pass pass ak yoy parce que lolu du lu ñuy jëf lu ñuy xam la ak lu ñuy fas la mais népp lu nga xamanteni dañ koy jëf al amaliya moy kam nga xam ay julli ay wor ay ay zakat parce que yoy dang koy jëf معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أدلة التفصيلية مونغا خميكو كي أدلة ينغا خمانتني تي تي لاي ينغا دينكو دنكو دتاي برسك فوف دينغا جيس ديفرانس عن ترفق أك أصول الفقه موي فقه موم أي, أي لايم كي جنراليتي لي نك مانام موم فقه بو نيوة تايدي bo ñewon ci usulul fiqh tay di xol ak diko geussu do fa fek ay ayat yu ñuy tari wala ay hadith yu ñuy tari wala masala bi ñu ñëw di indi ay ayat indi hadith masala bu nekk ñu indi haditham indi dedet mom day ñëw na al amru lil wujub day ñëw na la al am yufidu al umum al am yufidu al istighraq an nahyu lit tahrim mom lay lay mom mom lay ñewé maanaam ay qa'ida lay tek indi wala mu dirasa Euh, mu diraasa alquran bi wala mu diraasa dalil bi ci globalité ma maanaam lii war naa mën a nekk dalil lii war na mën a nekk delluwaay ndax alquran alquran dalil la wala du dalil alquran bu nekkee dalil ndax qiraa shaaza mooy dalil wala du dalil moom foofu lay développé xadis lan moo lan moo ci mën a nekk dalil lan moo ci mën a nekk delluwaay xadis ahad moo nekk delluwaay wala xadis mutawaatir bi moo nekk delluwaay moom foofu lay foofu moom ci moom moom moom moom généralité wu dalil bi lay lay lay lay lay lay foofu lay dellu mais fiq bi moom moom détails yi moom dalil masala mu nekk ak dalilam masala bu nekk ak dalil nga xamante ne benn masala mën na ñëw mu am ay fukki ayat ay fukki xadis dégg nga parce que masal babu zakat bu ñëwee mu andi dalilam babu rahn bu ñëwee mu andi dalilam babu bay bu ñëwee mu andi dalilam deng babu talaq bu ñëwee mu andi dalilam masal masal bu nekk mu andi dalilam motax tax ñu ne ko adilla tafsiliya moom adilla yi ñu jël moy ay détails lay indi fiqh bi ci détails lay lay évoluer mais usulul fiqh bu mom ci généralité wu dalil bi lay andi moy day wax ni est ce que alquran dalil la est ce que le sahabi yi dalil est ce que charu man qablanaa dalil la moom foofu lay développé gis nga moom du détaillé mais jëmmi dalil ba ngay dem di jëli je fa ngay dem di tibbi ji moom loolu lay wax ni est ce que lii delluwaay la faqi bi nag moom moo ñëw di fa rocci benn par benn di ko méngaleeg masala rocc baat benn benn di ko méngale ak masala dem ci baabul bay rocc fa benn aaya méngo ko méngo koog masala mi dem ci baabul rahn rocc koog benn aaya méngale koog masala mi dem ci xadis rocc benn xadis méngale ko am masa moom mu ne moo tax ñu ne la adilla tafsiliya kon معرفة الأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد من لنكو تعريف أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ما نعم خم أدلة الفقهية يوي بوكو خمي بباري أدلة يوي نخمكو ندجلكم منك 10 ولا 5 ولا 20 يني دبو أك يني دبو نخم نيلة بباري xam nga ko mu jàngal la alquran jàngal la suruutam jàngal la li ci am jàngal la su euh, jàngal qiraa shaz jàngal la li nga xamante ne moom mooy sunna sunnal qawliya sunnal fi'liya sunna jàngal la ko loolu ba pare nga xam ne yii mooy adilla yi mu ne wa kayfiyatul istifaadatu minha naka nga koy naka nga ciy jëriñoo nag dalil yi naka nga ciy jëriñoo loolu dalay jàngal dalil yi jàngal la naka nga koy daliloo naka nga koy jëriñoo dalil yi yow boo accès si boo ñëwee dox dox ba accès si dalil yi lan mooy tax nga mën ci am mu boroom xam-xam ne loolu moom moo tuddee dilaalatul alfaaz nga xam dilaalatul alfaaz mooy nga dugg ci mabaaxis dilaalatul alfaaz nga xam te ni dalil bi ñëw na nekk waxu arab ay baat rot ci baat yooyu rot ci lan lay tegtale dilaalatul alfaaz lan lay tegtale foofu nga xam baat yi jàngat ko xam ko bu baax pour mën a xam dalil bi lan la la wax parce que boo xamul baat yi mënoo am mënoo mënoo mënoo mënoo ci istidlaaloo moo tax ñu ne maarifat adillati shari adilla shari ijmaali wa kayfiyatul istifadatu minha naka nga koy jàngatee parce que exemple bi tey bu dee usulul fiq nag buñ ko taarifee si li nga xamante ni turam la usulul fiq xam nga fële dañ ko taarif ci baatam ñaari baat ñu tàqal ko mais nag usulul fiq président Ablaye Wade xam nga fële dañu président Ablaye Wade mais fii ñu ne usulul fiq ñu ne président Ablaye Wade kon kon da koy da nga koy taari ci ci ci jëmmi Ablaye Wade ak ci fonction bi nga xamante ne moom lay def ak li mu doon kon suñuy taarif usulul fiq ci ci santam ci turam xam nga fële dañoo séparé tur bi ak sant bi taarif ko mais fii ñu jox ko tur bi yëpp ne kii mooy bu ñu nee usulul fiq rek xel yëpp na dem ci jëmm ji ñu ne loolu mooy mu ne mooy ilmu bi nga xamante ni day baxs al adilla al ijmaliya maarifatu adilla al ijmaliya maanaam dalil yi li war a nekk delluwaayu faqih bi fiq bi fan faqih bi wala fiq bi fan la war a dellu ba mën a wax ni lii waajib la wala lii mustahab la wala mandub la wala lii xaraam la wala lii makruh maanaam fan fan la mën a dellu ba mën a am loolu fa muy dellu bay mën a layloo loolu ay dalil la ay dalil lay mën a dellu pour mën a wax ni lii waajib la wala lii xaram parce que munta wax waajib la wala munta wax xaraam la rek te amul fu mu ko teg te amul delluwaay bi nga xamante ne fa lay dellu foofu muy dellu nag loolu ay adilla la adilla yooyu nag la la usulul fiq di jàngal معرفة أدلة الفقه معرفة الأحكام معرفة أدلة الفقه الإجمالية نغا خم أدلة مو خم لا أدلة خم لا قرآن لان موي مسائل لي نيك تي قران ها آه. قران ليلة ولا دول لي قراءه شاذه ولا سنه ولا آه. ولا اجماع واجماع ندخ اجماع اجماع اجماع اجماع اجماع لا نوار ديلو خمال لان موي اجماع Euh, xamal lan mooy lan mooy lan mooy ndax ndax ndax ndax ndax maanaam nit ñi suñ ijmaayee dañoo war a xaar ba génération boobu nga xamante ni ñoo ijmaa ñoo dajale génération bi dañoo war a dem ba dee ba jeex tàkk ijmaa bi doog a doog dugg à sa vigueur maanaam doog a doog a doog mën a doog a mën a samp doog a doog a mën a doog mën a doog a mën a sax ndax ndax ijma bi dañu bàyyi ba ñëpp ñi ñi dëppoo ñëpp dee ba pare ñu ne voilà kon wax yi tey lay doog a fasu kenn weddiwu ko mooy inqiraadul asr su paree foofu mu ñëw jàngal la ci eh, en anwaawul ijma ijmaau sarix wa ijmaau zanni ijmaau qat'i ah eh, ijmaau sarix wa ijmaau sukuuti ijmaau zanni wa ijmaau eh, qat'i mu jàngal la façon ijma ndax est dañ naan nit ñi dëppoo nañ rek wala loolu dalil la wala am na dëppoo bi nga xamante ni tey yoon bi mu jaar ba agsi si ñun dëgërul wala am na dëppoo yi nga am boroom xam-xam yëpp ñoom ñoo dajaloo dëppoo ci wax ci jox ci seen kàddu nga xamante ni moom ijmaa am sarixan qat'i la wala ijmaa bi am ijmaa sukuuti la mooy diw dafa wax diw dafa wax la mu wax ñeneen ñi dégg nañ ko waaye weddiwuñ ko ñun dañu noppi ñu ne ah comme ñoom weddiwuñ ko kon dëppoo am na yooyu yëpp usul fiq bi moom moo lay jàngal ndax ijma dellu moo tax mu ne la maarif al bahs an adilla ash-shar'iyya yi lii lii lii delluwaay la wala du delluwaay qawlu saxaabi yi ndax dalil la ndax saxaaba bi boo waxee ndax ndax dañ naan rek saxaaba bi wax na rek saxaaba sàngam moo ko wax rek ñu ne dalil la saxaaba sàngam wax na rek ñu ne la wala dañ naan ah saxaaba bi su waxee te kenn ay moroomam dégg ko weddi wuñ ko loolu moom mooy dalil fiq bi usulul fiq bi loolu lay jàngal jàngal la charaw man qablana jàngal la al istishaab jàngal la li nga xamante ni mooy saddu zara jàngal ma loolu léegi nag adilla yi am na ci ay adilla yi nga xamante ni dëppoo nañ ci ne yii kat adilla yi wér na delluwaay la delluwaay la wér na am adilla yi nga xamante ni dañ naan adilla yii kat moom boroom xam-xam yi dañ cee wuute su alxuraan ne aqimu salaa aqimu salaa fa lafz ñëw na aqimu lan nga ci xam léegi nag foofu la baxs bi di ñëwee kayfiyatul istifadatu minha mooy al amru hada amrun wal amru yufidul wujub kii kat amru la te amru yufidul wujub waaye nag dilaalatul alfaaz boo si duggee daf lay jàngat yeneen détails yu gën bëri ci loolu ndaxte lafzu bi dafa am ay dilaalaat yu ci wuuti tey al su ñëwee ndax dilaalatul xukmu bi dilaalatul xukm bi ñëw ci lafzu bi maanaam lafzu bi ban dilaala la am ban tegtal la am ci wàllu mu ci wàllu atte ndax yu fii fiidul wujub wala ndigal jëfe par force la wala ndigal su ñëwee jëfe bu la neexee la mooy bu la neexee nga jëfe boo defee am yool boo bàyyee doo am bàkkaar muy mandub wala amru su dikkee moom mu baax la bu la neexee def bu la neexee doo def loolu dilaalatul alfaaz am lañ dilaalatul alfaaz baat bi lu mu tegtale lan la kon dilaalatul alfaaz dilaal dilaalatuhu xukman lafzu bi dilaala bi mu am xukm nga ñëw si dilaala bu mu am min baatu baatu santaane bi bu mu ñëwee aqimu salaa taxawal leen julli santaane bi bu mu ñëwee wala may ma ndox wala génnal dilaa baat boobu bi mu ñëwee dilaala bi mu joxee lan la ginnaaw bi nga ko xamee ci xukmu bi ndax loolu dafa force da ngaa war a da war a julli wala boo jullee am yool boobu boo julliwul doo doo am doo am doo am bàkkaar mu nekk ndax julli kon mustahab la walla julli mu baax la bu la neexee doo defal loolu usulul fiq bi moom moo la koy jàngal baatu amru bu ñëwee ban dilaala la am amru su dikkee ban dilaa la am ndax xukk ndax waajib la kañ lay doon waajib ndax man manduub la kañ lañ dul kañ lay doon manduub su paree mu jàngataat lafz bi ci beneen dilaa la mooy dilaalatu zamaan maanaam santaane bi su ñëwee amru bi su ñëwee santaane bi su ñëwee ban tegtal la joxe ci wàllu jamono jamono ji nga ko war a def léegi nag foofu nag débat am foofu bayna al ulama ci diggante xam-xam yi ndax yu fi dul fawru nga ko war a def ci saasa ndax santaane bu ñëwee ndigal li su ñëwee su rotee jëfe ca saasa la wala jëfe ci euh, ci ab diir la maanaam ala taaxir maanaam est-ce que su ma tey boo ma ne may ma ndox est-ce que tey baatu may ma ndox ndigal loolu ñëw foofu ndax ndigal li day wane ndigal su ñëwee day wane dañ ko war def ci saasa wala dañ ko war war nañ ko mën a taaxeerlu loolu aussi débat la wala day wane ni euh, moom mooy di mooy mooy bi lan ban dilaala la joxe ci zamaan ci temps waaye amaat beneen débat mooy ndigal li aussi ndigal su ñëwee soo ne aqimu salaa wala nga ne may ma ndox waaw may ma ndox boobu ndax man su ma la mayee ndox day wane ndax man baat bi dama ciy déggee ni dama laa war a may damaa war a julli benn yoon rek wàccook yoon wala dama war a julli julliwaat te loolu est-ce que baat bi wane na loolu baat bi daa wane benn yoon lañ ko war a def wala lañ ko war a def defaat ndax dilaalatuhu ala ala ala al adad maanaam lafzu bi ban dilaala la wane ci ci limu ndax santaane boo santaane nit ki nga santaane dara ndax dafa war a limu wala bu ko defee benn yoon wàcc na soo nee may ma ndox tey est-ce jëmmi baatu may ma ndox benn yoon kese la lay wane wala day wane def defaat loolu mooy dilaalatul alfaaz sharciya léegi nag dilaalatul alfaaz sharciya dafa am ay mabaaxisam yu fa nekk dafa am mabaaxis yu bari yi nga xamante ni moom moo fa nekk boo ñëwee ci euh, al amru nga ñëw ci an nahyu nga ñëw ci al al aam wal xaas al mutlaq wal muxayyad dem ci al mujmal al zahir ñëw foofu ngi gis foofu an nas gis foofu at ta'wil nga yooyu yëpp nag boo ko dajalee moom mooy kayfiyatul istifadatu mi nag kon xam nga dalil yi fële mais dalil yi noo ciy jëriñoo soo amul ay outils yi nga xamante ne da lay jàngal baatu arab bi ak ak ak mabaaxis yi nekk ci baat bi gëstu yi nekk ci baat bi ba nga maîtriser ko nga ñëw ci an nahyu mu jàngal la nahyu euh, an nahyu yufiidu tark indil la mabaaxi si ci nekk wëlbati lu ko ci côté yu nekk bunt yu nekk jàng nooy mën a boo ko xamul nooy mën a nooy mën a nooy mën a jëriñoo ci dalil bi mënoo si jëriñu nga ñëw ci mantuuq yi mu jàngal la mantuuq yi ah euh, lafzu bi ci boppam dilaalat lafzu mu jàngal la man nga jàng mantuuq yi boo jàngee mantuuq bi jëge jàng jàng ci mafaahim mafhum bi même li ñu waxul li nga xamante ni waxuñu ko te dañ koy comprendre nga ñëw ci mafhumul muwaafaqa mafhumul muxaalafa mu jàngal la loolu lépp ba nga pare ci ngay mën a am ay uti yi nga xamante ni si ngay mën a delloo ci dalil yële mën fee jëlee xam-xam mën fee jëlee ak xukum moo tax mu ne da lay jàngal adilla yi jàngal la wa kayfiyatul istifadatu minha waaye kon loolu tey taxuñoo jóg maanaam usulul fiq mabaxisami al aam wal al amru Euh, am yu fii dul fawr yu fii dul yu fii dul taraaxi yu fii dul tikraar yu fii dul nangam yooyu nekkul ni moom moo ñu moom moo ñu jox al mutlaq xamlul mutlaq alal muqayyad xamlul ah mabaaxis yooyu nekkul ni loolu tey moom moo ñu tax a jóg moo li ñu tax a jóg tey nekkul ni xam lan mooy al al waajib dégg nga al waajibul muxayyar al waajibul muwassa loolu nekkul ni moom mooy tax nekkul li nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg eh, xam lan mooy manduub ah. yuy al al al mubaax ndax mubaax min ash-shar'i aw laysa min ash-shar'i débat bu mag mi ngi foofu diggante ahlu sunna ak mu'tazila yi dégg nga yu nekkul lool moom moo ñu tax a jóg mais tey li ñu tax mooy xam-xam bi njëriñ bi mu am ak solo si mu am fan la jaar ñen ñoo ko sos ñen ñoo ci bind ba mu agsi fii yan école moo ci am yan téere lañ ci bind yan évolution moo ci am loolu mooy li nga xamante ni moom moo ñu moom moo ñu tax a jóg ci sunu jotaayu tey bi kon mbokk yi li jiitu woon ci kàddu yi loolu laytaay la woon ci ñu xam lan mooy usulul fiq ak njëriñam waaye sunu waxtaan wi mooy usulul fiq kan moo kan moo xam-xam bi fan la bàyyi ko mbokk yi pour waxtaane loolu Euh, danañ jaar ci ay euh, jamono yu wuute wane ci évolution ak jaar-jaar ak màggaay bi nga xam-xam bi nga xamante ne xam bi màgg na ko à travers ay jamono ak ay xarn ak ay boroomi xam-xam ak ay bind yi nga xamante ni bind nañ ko ci ay jamono yu wuute waaye liñ ci mën a ràññee xam ko ci mooy ne xam-xam bi ki ko tëral ki ko njëkk a tëral moom mooy imaamu shafii rahimahullah ci qarnu saani bi wala mën ni sax qarnu saalis bi waaye li gën a wéew mooy qarnu saani bi waaye nag a shafii nekkul ni moom moo ko créé créé wu ko waaye moom mooy ki nga xamante ni moo jëmmal xam-xam bi ndax mënuñu wax ni moo ko créé parce que xam-xam bi dafa juddu ak sharia juddu ak l'islam juddu ak alquran juddu ak ak sunna feeñ ci alquran feeñ ci sunna te alquran ak sunna moom moo jiitu imaamu shafii euh, yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon ko euh, doon ko jëfee ci intervention yi mu doon def ci ay ahkam ak ci ay njàngalem ak ci xadis yi di ci yar saxaaba yi aussi di leen ci di leen ci jàngal di leen ci nàmpatal di leen ci wan ci yoon mën nga joxe exemple tey bi nda waa ji ñëwee ne ko ah man kat sama doom eh, sama jabar dafa dafa dafa dafa am dafa wasin am doom doom ji dafa dafa ñuul dafa xaw a ñuul loolu nag munu ma moo munu ma loolu nekk lu ma jaaxal yonent bi ne tekk ba mu yàgg nekkoon ndax mosoo woon am ay ay ay ay giléem yu yàgg mu ne ko ankay ah, mu ne ko ndax amul woon bu bu yu ci ñuul mu ne ko waaw mu ne ko ñuul boobu fu mu jógee mu ne ko ah ñuul boobu de mën na am gileem yi da koo jël ci gileem googu da koo jëlee ci ay maamam yu ñuuloon mu ne ko tamit nag mu mu mu jox exemple mu ne ko naka noonu tamit sa doom ji mën na am ñuulaay bi da koo jëlee ci ay maamam yu ñuuloon kon loolu mu ngi koy jàngal foofu mu ngi koy jàngal li nga xamante moom mooy xiyaas euh, keneen ñëw na yonent sallallahu alayhi wa alihi wa toog na ci jotaay aqra alxaabis yi laaj ko bi yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee ni Euh, ci xaj mu ne ko afi kulli aamin ya rasulallah ndax aj dañ ko war a def ci bépp at dañoo war a aj ndax loolu dafa nekk war nga am bépp at julli ñi dañoo war a at buñ ajul am bàkkaar kenn ku ci nekk yonent bi ne yonent bi ne ko su ma ne woon waaw mu war li boroom xam-xam yi daan ne eh, ce que kon foofu aqra alxaabis moom comprendre ne kon ndigal ndigal dañ ko war a def defaat wala foofu nag daal di jur débat ñii ne aqra alxaabisi dafa comprendre ne ndigal dañ koo war a def defaat ñaan ñi ne déedéet aqra alxaabisi comprendre loolu ndax su ko su ko comprendre noonu du ko laaj su comprendre noonu ne ndigal dañ koo war a def defaat kon du ko laaj ñu ne déedéet moom comprendre aqra alxaabisi dafa comprendre ne ndigal dañ ko war a parce que aqra moom arab la bu set bu dégg arab kon lu tax laaj boobu mën a tàbbi ci xelam xalaat boobu mën a tàbbi ci xelam parce que kon ndigal dañ ko war a def defaat lu tax yonente salallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di ko koy nangul ko laaj bi parce que mënoon na ko aqra yow sa laaj bi amu fi place loolu mooy lan ñu ne ñaar yooyu kon day wane ni kon ndigal al amru yu fii du tikraar ndigal dañ ko war a def defaat ndax buñ ko bu fekkonte ne waruñu ko def defaat kon du tabbi ci xalaat boobu du tabbi ci bopp aqra benn ñaareel ba mooy kon yonent bi du ko nangul laajam bi borom xam-xam yi ne di ñeneen ñu ne déedéet ndigal kenn waru ko def defaat ndigal boo ko defee benn yoon wàccoo nga ak yoon ndax su fekkonte ni ndigal dañ ko war a def defaat kon aqra du ko laaj ndax moom xam na ko arab la kon mu nekk débat yi nga xamante ni maanaam day wane ni kon xam-xam bi dès le amoon na saxaaba yi jël ko euh, dund ko euh, mais dund gi ñu ko doon dund nekkul ne dañ ko doon dund ci jàng wala ci ay tëral ay téere wala ci ay ay ay mbind déedéet mais dañ ko doon wax ci seen saliqa mu nekkoon seen seen seen mu nekkoon li nga xamante ni dafa nekkoon ci seen seen làmmiñ nekkoon ci seen xel euh, nekkoon ci seen li nga xam ne moo nekkoon ci seen seen nekk ci seen biir nga xamante ni dañ koy dañ koy waxee dañ koy waxee di ko doxee mais nekkul lu nga xamante ni dañ ko doon toog di ko tëral di ko jàng noonu la ko saxaaba yi doon dundee wala saxaaba yi dund ko noonu ñoom euh, jëlee ko ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ko ba pare jàngale ko ci ci ci ci seen taalibe bi ñu nga xamante ni saxaaba yi tasaaroo nañ ci ci àddina ku ci nekk amoon ay ndongo ibnu omar amoon naafe naa euh, jàngal naafe jàngal euh, imam malik ibnu abbas aussi moom jàngal ki nga xamante ni mooy ikrama ikrama jàngal euh, ay ay ay ay ay yeneen i ndongo yeneen taabiin ci noonu lañ wirasa li nga xamante ni mooy xam-xam bi ba keroog muy àgg ci ki nga xamante ni mooy imaamu shafii imaamu shafii lan mooy waral ñu ne imaamu shafii moom mooy ki nga xamante ni mooy tëral xam-xam bi waxuñu ne moom moo ko sos parce que sos bi amul sos bi amoon na fi xam-xam bi amoon na fi euh, mu ngi woon ci dënn góor yi waaye imaamu Shafii yi daf koo jëmmal daf ko jëmmal ci xarnu saani ci deuxième siècle bi maanaam lan mooy da koo jëmmal mooy dafa fekkoon ab xam-xam bu nekkoon ci ay dënn ñu di ko doon waxee di ko doxee mu jël ko seppi ko jëmmal ko ba mu nekk ci ay ay ay ay xawaayit nekk ci manhaj bu nga xamal bi nga xam ne ñeneen ñu mën a ñëw ci ginnaaw dañuy mën a waxee na ñu doon waxee wala déggee na ñooñu doon déggee wala di di xamee ni ne ñu doon xamee te ñoom niñ ko amee mooy ci am mbind lañ ko jaarale ñu dañ ko doon waxee ci saliqa kon xam-xam bi lañ génne ci dënn yi daal di koy jëmmal ci ay règle ba tey nga mën a ñëw jaar si jàng ko xam ko di wax comme ñooñu ni ñuy waxee di dégg comme ñooñu ni ñuy déggee tey dangay nekk nit ku ñuul kukk wala nga nekk ab tubaab bu weex tàll nekk ab ajam mosoo dégg arab mosoo xam arab ngay nga mën a wax tey na arab yi di waxee na utiliser seen asalib utiliser seen seen siyaaq yi utiliser seen ibaar utiliser seen kalimaat yi di comprendre aussi ñoom ni ñuy comprendre ci biir làkk bi loolu lan moo ko waral mooy dañoo tëral benn xam-xam bu ñu tuddee nu naxu jàngal la jàngal la alkalaam aqsaamul kalaam jàngal la aqsaamul fi'l jàngal la alxarf jàngal la xuruuf jàngal la mubtada jàngal la xabar jàngal arab nii lañ koy waxee ba tey nga mën a jóg mën koo làkk ñu ne ñu jaawale ak ñu jaawale ñu jaawale la ak ab arab lu tax mooy xam-xam bi dañ koo tënk dañ koo tënk jëmmal ko nga fekk ko mën koo utiliser ko wax ko comme ni ko arab bi doon waxee naka noonu nga mën a way tey comme ni imrul qays doon wayee wala ni antara doon wayee lan moo la ko waral mooy tey dañoo dañoo jël xam-xam boobu nga xamante ne moo nekkoon ci seen dënn yi sotti ko jëmmal ko nga mën a ñëw xam ne lii fii la commencé lii fii la yem dégg nga jariñoo ko jàng ko mën a wax comme ñoom noonu niñ doon waxee donte ko ñoom ñoom niñ doon waxee lañu xamoon tey ji ñoom ay antara ay ibnul qays ay nakam ay nangam ak ñooñu tey mën na amuñu xamuñu woon ay baxar baxaru basit baxaru nangam baxaru nangam baxaru nangam ñoom xamuñu ko woon mais tey yow yaa ko jëmmal tënk tënk ko ci ay xawaaj tënk ko ci réega noonu nag la imaamu shafii def imaamu shafii dafa fekk xam-xam bi nga xamante ni dafa nekkoon ci dënn saxaaba yi ñu ko daan ñu ko daan waxee ak ñu ko daan comprendre mu ñëw xam-xam boobu mu génne ko kon moom këryeewu ko mais da ko jëmmal da koo jëmmal lan mooy cosaanam mooy euh, dafa am benn borom xam-xam bu ñu wax euh, Abdourahman al Mahdi Abdourahman ibn al Mahdi nekk borom xam-xam xadis bu mag moom moo bind imaamu Shafii ne ko sàkku ci moom mu bindal ko mu tënkal ko yenn ci ay ay ay ay xam-xam yenn ci ay qawaid ay règles yi nga xamante ne mënees na ci sukkandiku pour mën a pour mën a pour mën a pour mën a pour mën a tirer ay ahkam pour mën a istimbaat pour mën a euh, pour mën a pour mën a ballulu ay atte ci benn texte bi mu defee bi mu ko bindee leet bi mu ko bindee sàkku sàkku sàkku ko mu defal ko loolu imaam imaamu Shafii yi daal di koy bindal benn benn daal di koy bindal xam-xam boobu loolu muy sàkku nga xamante da koy sàkku mu bindal ko lu nga xamante ne dana ci mën a sukk danañ ci mën a sukkandiku pour ballulu ay ahkaam imaamu Shafii yi bindal ko bindal ko lenn ci ay ay ay xam-xam daal koy daal di koy def ci benn risaala daal di ko koy yóbbante mu dem Baxdaad waaw léegi nag eh, Abdurahman Ibnul Mahdi gis loolu rafetlu ko lool kontaan ci lool. parce que Abdourahman al Mahdi tamit nekkul woon nekkul woon nekkul woon jaahil borom xam-xam la woon waaye borom xam-xam yu gënoon mag ci jamono la waaye sam borom xam-xam yu parce que borom xam-xam hadis woon waaye borom xam-xam bu amoon amoon am borom xam bu bu amoon sens la woon bu amoon tawfiq parce que lu tax ñu ne lu amoon sens la woon mooy dafa bokkoon ci waxuma sax xam-xam. mais li gënoon a raar ci xam-xam la ko yàlla mooyoon mooy mooy ilmul ilal parce que ilmul ilal borom xam yi nee nañ bokk na ci xam yi nga xamante ni e, yàlla ñi mu koy may si jamono bariwul parce que boo xoolee ci taarixul ummal islami yëpp da ngay gis ni ci chaque siècle ci chaque xarnu bu nekk borom xam-xam yi ci utilisé wu ci ilalul hadis ñu néew lañ ci Abdurahman ibnul Mahdi kooku moom yàlla mayoon na ko xam boobu kon moom nekkul woon ak cuune wala ab jaahil wala ku doyal yi déedéet dafa fekk ne jamono boroom borom xam-xam yi dañ doon def échange dañ doon weccil dañ doon dañ doon def weccil ku nekk di di échange ak sa morom donc Abdourahman Abdourahman Ibnul Mahdi dund si jamono bi nga xamante ni dafa bëri fitna jamono yi nga xamante ne xilaafaat yi dafa bëri firaq yi dafa bëri mazahib yi bëri orientation yu bëri déggin yu bëri interprétation yu bëri dégg nga futuxaat islami yi ubbeeku yeneen nit ñëw ku nekk ni am nooy gisee waaw mu sàkko ci imaamu Shaafi mu tënkal ko dara imaamu Shaafi daal di koy bindal loolu mu ko bindal def ko ci benn bataaxal daal di koy yóbbante mu mu àgg ci moom mu rafet lu ko waaye léegi nag bataaxal boobu nag après moom la imaamu Shafii yaatal ndongo yi sàkku ci moom mu yaatal la mu bind Abdourahman al Mahdi njëriñ la ca nekk na ko yaatal imaamu Shafii gën koo yaatal ci ab téere téere boobu mu ko gën a yaatal nag téere boobu lañ tuddee risaala mais moom imaamu Shafii tuddeewu ko risaala moom fil kitaab lay wax waqul naa fi kitaabinaa haada moom loolu lay wax mais comme ni téere bi Euh, njëriñ li fi nekk lële mooy cosaanam mooy bataaxal ba la ñu daal di jël téere bii nga xam moom la imaamu Shafii bind tuddee ko arrisaal tuddee ko alba tuddee ko tuddee ko arrisaala léegi nag lan moo tax imaamu Shafii mënoon a jekku mbir moom mënoon a jekku euh, loolu imaam Abdurahman al Mahdi sàkkuloo sàkkuloo ko ko mu bind ko lan moo tax imaamu Shafii mënoon koo jekku mën a jekku xam-xam bi. bañ mën a wax ni sax moom mooy njàlbeenu ku ci mën a bind lan yan mooy lan lan moo tax imaam Shafii am avantage boobu lu bari la mooy ne euh, ñeneen mënoon nañ ko bind Abdourahman ibn Mahdi mënoon na ko keneen mënoon na ko mais imaamu Shafii daf cee gën a jekk ba pare daf cee gën a am sens ndax yu bari lu mu dajale benn bi yi mu dajale bokk na ci mooy imaamu Shafii euh, ku ne xam na ni dafa dund màkk dund Màkka dund mi Medina te foofu mooy foofu mooy cosaanul wax yi foofu mooy cosaanul diine donc diine fa mu cosaanoo nga war cee wax ba pare dund fa màggee fa euh, jàngee fa dund ci suuf sa dund ci environnement boobu yow ye daanaka buñ ne buñ ne amoo sens buñ ne am nga sens sam wala dañu wax dañoo war a wax ni yow bokk nga ci ñi ëpp sens parce que yow da ngaa dem ca ca mbànjaxaan nga da dem ca da dem ca cosaan la da ngaa dem ca ca source nga jëlee foofu <coughs> waaye nag loolu doyul mu jógee foofu ginnaaw bi mu jàngee foofu mu dem Iraq waaw dajeeg dajeeg dajeeg ndong ak imam imam imam imam Abu Hanifa yi waa jàngee si ñoom munaqasha ak ñoom jëlee ci ñoom ah, échange ak ñoom si jamono bi nga xamante ne Iraq daanaka lépp ngi fa woon Carrefour la woon Carrefour mazahib yi maanaam Carrefour mazahib mazahib yi pas-pas yi Carrefour la aussi tamit ci mazahib euh, mazahibul fiqhiye yi ak yeneen borom xam-xam ne dañoo spécialis spécialité wu ba pare Irak aussi nekkoon euh, dëkk bi nga xam dafa bëri woon ay yëngu ak ay rëngi-rëngi ak ay événement politique yu bëri état yi di coup d'état wante ñi di rente ah mu bëri daal ah, mu jógee foofu mu jógee foofu moom imaamu Shaafi dem Égypte aussi fekk fa ay borom xam-xam euh, munaqasha ak ñoom loolu lépp boo ko dajalee boole ko ak nu mu déggee woon arab nga xamante ni vraiment dafa dafa parce que nit parfois mën nga am xam-xam sax mais sa xam-xam du mën a feeñ du mën a génn parce que amoo amoo arab bu ko mën a amoo làkku arab bu ko mën a ko mën a bu ko mën a tënk bu ko mën a bind ci bind bu bind bu jekk bu rafet mais nag imam Shafi yàlla da ko mooyoon mu diggoonu arab sax nit ñi ne wax nañ ni sax borom xam-xam wax nañ ni sax bëri na woon <coughs> amoon na ay nit yu bare bare bare bare bare yi nga xamante ni dañ daan ñëw ci jotaayam rien que pour rek arabe bi rien pour arabe bi kese ñoom ndax arabe bi nu mu neexee ak nu mu setee ak nu mu jubee te nee nañ toog nañ ci moom ay jamonoy jamono jamono jamono gisuñu ci moom fenn fi nga xamante ni vraiment euh, juub na juum na fa si arab wala mu wala mu wala mu yàq wala mu rungee fa wala déedéet arab bi dafa setoon donc yooyu noonu ay capacité yi nga xamante Euh, dafa may imaamu Shaafi mu mën a jekku li muy wax ba mën ko ba mën a fent wala ba mën a tëral li nga xamante ne moom mooy moom mooy xam-xam usulul fiq ci la ko bindee si téere bu ñuy wax risaala waa risaala boobu nag aussi day risaala boobu téere boobu ndax am na dayo ah yi téere boobu dayo bi muy am mooy dayo bi ko bi ko borom bind parce que ki koy bind nit la ki nga xamante ni dafa nekk ci milieu bi nekkul ku nga xamante ni dafay def ay théorie déedéet kooku théorie la kii bind risaala kii bind usulul fiq bi nekkul ko nga xamante ni dafa sori fiq bi parce que moom dèjà sax moom moom moom mooy moom mooy moom mooy sël borom xam-xam ci mazahibul arbay ki nga xamante ni moom moo bindal fiqam kitaabul umm donc kon moom nekkul ku nga xamante ni day day def ay théorie déedéet moom dafa def dafa dafa def pratique bi ba pare maanaam dafa def fiq ba pare ci téere bu nga xam da ko bind bind fiqam ba pare kooku bu bindee fiqam ba pare ñëwaat di indi ay règle yi nga xamante ni moo si la jaar ba génnee fiq bi kon kooku kii wax nekkul ko sore fiq bi kon loolu tamit mooy wane dayo bi nga xamante ni moom la euh, risaala am mooy risaala ki bind risaala nga xamante ni moom mooy imaamu Shaafi mooy ki nga xamante ni moom moo bind li nga xamante ni moom mooy moom mooy fiqam donc imaamu Shaafi bi mu bindee risaala aussi tamit bind ko ci anam bi nga xamante ni anam bu sell la Eh, ci arab bu set arab bu rafet arab bu nga xamante ni vraiment eh, arab bu am cosaan la waaw loolu nag eh, yóbbu na ko aussi tamit mu mën a mu mën a mu mën a mu mën a mu mën a yaatal donte ci njaalbeenu njaalbeenu xam-xam bi la nekk mais loolu permettre na ko aussi ci capacité d'intellectuel am d'intellectuel am ak ci bii abi mu dundoo ak avantage yooyu mu ko mu mën a am teewul ni njaal benn xam-xam bi la mais yaatal na ci ay bunt yu bëri yaatal na ci ci ay bunt yu bëri ndax eh, ndax parfois dañuy gis ni mbir suy mbir suy doog a door xëy na du yaatu mais gis nañu imaamu Shaafi yi moom bi nga xamante ne moo door mbind mi teewul ni masail usulul fiq yi indi na ci ci anam bi nga xamante ni vraiment indi na ci anam indi na indi na ci lu bari wax na ci al bayaan wax ci al wax ci al naasix wal mansuux wax ci al umum wal xusuus wax ci al qiyaas wax ci al ijtihaad te pourtant mu ngi nekk ci njàlbeen li nga xamante ni moom mooy xam-xam donc imaam Shafii te imaamu Shafii bi mu bindee xam-xam bi ba pare nag ba nit ñi rafetlu ko nag ah, loolu nag jëf jooju nag ak liggéey boobu nag commencé nag tasaaroo nit ñi nag commencé di ci bàyyi xel nit ñi rafetlu ko waaye mu ñu ci rafetlu ko kese mais nit ñi commencé nag di di di di def comme li imaamu Shafii di def ñoom it commencé di ci di jéem li imaamu Shafii def kon mën nañ jàpp ne imaamu Shafii mooy njàlbeenu njàlbeenu tëral xam-xam bi njàlbeenu tëral xam-xam bi jëmmal ko mu ngi nekk ci imaamu Shaafi ci imaamu Shaafi yi la juddoo maanaam tëral xam-xam bi ci am bind ci ay qawaayid ci lu ñu yaxanal lu ñu lu jëmmal loolu mu ngi ndorteelam mi ngi nekk si jamono imaamu Shaafi yi kon mën nañu wax ni foofu la foofu la juddoo mbind mi foofu la foofu foofu la juddoo foofu la démarré kon ah, mën nañu wax ni ci deuxième siècle bi moom mooy moom mooy njalbeenu mbind ci ak tëral ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy xam-xam bi kon deuxième siècle bi noonu la ci imaamu Shafii feeñee ak li nga xamante ne moom mooy xam-xamu euh, xam-xamu usulul usulul fiq bi boo jógee ci deuxième siècle bi dañuy ñëw si troisième secle bi parce que deuxième siècle bi comme imaamu Shafii moo ko moo ko door euh, da gis ni euh, da ngay gis ni effort yi ñu ciy mën a def daanaka du bari ndax mbir muy doog a door la. affaire yi am na ñoo xam leeragul seen bopp am na ñoom miinaguñ yoon wi am na ñoo xamante ni miinaguñ xam-xam bi am na ñoo xam capacité bi amagul moo tax lañ ciy bind ci deuxième siècle bi daanaka du bëri mais boo jógee foofu nga ñëw si troisième siècle bi dañuy gis ni foofu ah nit ñi nag commencé nañ commencé nañ di bàyyi xel xam-xam bi ak di commencé di jaar ci yoon yi nga xamante ni moom la imaamu imaamu Shafii jaaroon mais deuxième siècle bi li ci gën a fës mooy. Euh, mooy li gën a fés xam-xam bi ni mu gën a li mu gën a li gën a fés ci xam-xam bi ci deuxième siècle bi mooy daanaka amul benn téere amul téere téere bi nga xamante ni bind nañ ko ci téere euh, bi nga xamante ni wala risaala bi nga xamante ni mën nga koo jàpp ni ci ci ci këyit wala ci fooy nii wala ci papier euh, ne lii ni nii ci deuxième siècle la amul li am kay mooy ay nit yu ñu nettali ay nit ay boroom xam-xam yu ñu nettali après ci ginnaaw bi ne diw bindoon na ci xam-xam bi wala waxoon na ci xam-xam bi waaye daana waaye bu loolu weesoo ci ci ci troisième siècle bi mënoo làmb sa loxo ni daj ni lii ab téere la bi nga xamante ni moo ngi nii ci troisième siècle lañ ko bind ci usulul fiqh la déedéet daan ay nettali la ak ay wax ak ay parcipation yi nga xamante ne ay nit defoon defoon nañ ko fi waaye aussi tamit euh, ci deuxième troisième siècle boobu usulul fiqh bi li mu gën a ràññale ko mooy ay rasa il juz yooyu liñ ciy bind maanaam nit ñi ñu bind ci buntu xam-xam bi lépp comme nga bind nga commencé ci baabu tahaara nga dem ba ci baabul muamalaat ba dem ci buntu fiqh jeex nga am jaar nga ci buntu yëpp déedéet foofu li fesoon mooy usulul fiqh bi foofu ay rasail juz'iyya maanaam ci ay masail yu masail ci ay masa masail ci ay détails ci ay tomb la ñuy bind tomb sangam xabarul waaxid al ijtihaad par nga gis kenn ci lay bind mais bind ñu benn téere bi nga xamante ni dafa dajal dafa dajal ay ay ay ay bunt waaye aussi tamit ci troisième siècle boobu aussi tamit commencé na usulul fiq bi ama ay raddante nga wax ma tontu la ci usulul fiq nga wax lii ma tontu la ci usulul fiq d'accord ma ci yow commencé na aussi mit euh, doon feeñ bokku na ci tamit yi nga xamanteni ne ràññeeku na ci 3e siècle bi aussi tamit firaq al islamiyya yi aussi tamit commencé na commencé na commencé na biñu ñu na ba commencé am doole mazahib al fiqiyya yi aussi tamit commencé na judd nañ ba am doole quatre mazahib yëpp yaa ngi dégg xam-xam sharia yi aussi tamit fekk na ci 3e siècle bi aussi tamit xam-xam sharia yi yu ci bari yu ci bari mag na ba mat ilmul hadith ilmul qiraat yu ci bari mag na ba nga xamanteni ni ba nga xamanteni mat na bokk na ci li gënoon a fës aussi si troisième siècle bi aussi mooy euh, ilmu mantiq mantiq commencé di tasaaroo di yaatu euh, voilà mantiq bi commencé di di yaatu ba pare mantiq bi noonu mu tasaaroo di yaatu aussi dafa dafa dem ba nga xamante ni dafa def jeexital ci ilmu usulul fiq te loolu borom xam-xam ak gëstukat yi bind nañ ci bu baax lan mooy relation wu usulul fiq ak li nga xamante ni moom mooy ilmul mantiq waaw léegi nag ci ci ci ci xarnu boobu ci troisième siècle boobu noonu am na ci ay boroomi xam-xam yi nga xamante ni fël nañ gis nañ leen ñoom aussi amoon am nañ ay ay ay ay participation ci ci ci ci xam-xam bi ñu tudd usulul fiqh dugal nañ ci daal seen i grain de sel am na luñ ci yokk wala am na lu ñu ci tàbbal dara daal moo xam wax la moo xam ab ab ab werante la woon wala ab position bi nga xamante ni léegi nag ñooñu ñooñu bëri nañ ñooñu bëri nañ mën nañ ci lim ñenn rek ku mel ni ki bisr ibnu Giyaas ibnu Abdul Karim al-Mirisi nga xamante ni moom euh, borom xam mu'tazili la woon waaye ràññeeku ràññee ràññee woon nañ ay waxam wala wala wala wala tàbbal nañ ay waxam ci téere yi ay positionnement am ci li nga xamante ni moom mooy lu gën a fees moom mooy day génn ci ijmaatul ulama maanaam borom xam-xam yi li ñu dëppoo daanaka moom bu ñëwee ci mbooy gi lay jaar <coughs> da koy teggi ba pare daan utiliser li nga xamante ni moom mooy moom moom mooy moom mooy xelam lu bari euh, keneen ki ci mën a tudd aussi ci siècle boobu mooy Qaadi Isa ibnu Abaan Qaadi Isa ibnu Abaan moom it boroom xam-xam la woon bu mag moom aussi gis nañu ay ay positionnement woon ci ci saxal li nga xamante ni mooy qiyaas ba tey yaa ngi ci usulul fiq ak li nga xamante ni mooy xabarul waaxid maanaam xabarul waaxid maanaam xadis bi nga xamante ni ahad la war nañ ci mën a dellu parce que xadis day nekk aaxaat ak mutawaatir léegi nag xabarul waaxid boobu ndax mën nañ ci dellu wala mun ci dellu aussi moom it amoon na ci ay position amoon na ci ay position amoon na ci ay position waaw tamit nu mën a gis ki nga xamante ni tey mooy comme mel ni ki abu ishaq ibrahim ne yasaar nazam mu ngi koy waxee nazam loo nekkoon borom xam-xam mu'tazili moom it ku ku ku ku siiwoon waaye aussi nekkoon sëriñu imam jaaxiz Euh, imam jahis nga moom moom moom moom kii moom nazam mun tëri maanaam gis nañu ay positionnement wam ci usulul fiq ci li nga xamante ne moom mooy ay ay ay ay ay genre rasail yu mu bind lu mel ni ki te te di ci weddi li nga xamante ni moom mooy mooy ijma doon ci weddi aussi tamit li nga xamante ni mooy xiyaas xam nga buy weddi ijma ak buy weddi xiyaas da ngay day développé usulul fiqh bi ci façon bi nga xamante ni moom loolu la gëm ak façon bi nga xamante ni moom noonu la gisee euh, nazam nag moom mooy sëriñu jaaxis te jaaxis borom xam-xam yi nee nañ vraiment fontoon xel mi ak xalaat mi ci rëy rek wees na ko waaye léegi nag su fekkee jaaxis noonu la xel mi tolloon ak xalaatam ak rëyam noonu la ci borom xam-xam yi yéeme woon mooy def ak ki nga xamante ni mooy sëriñam bi nga xamante ni moo ko jàngal bokk na ci boroom xam-xam yooyu nga xamante ni feeñoon nañ ci jamono jooju aussi am ay eh, seeni xalaat ak seeni gisin ak seeni diggin aussi tamit ñu daal di koy for ci usulul fiq dajale ko borom xam-xam yi ñëw ci ginnaaw nett li ñu ne diwkat waxoon na telle position ci usulul fiq wala tel masala ci usulul fiq wala saxaloon na telle masala ci usulul fiq bokk na ci borom xam-xam yooyu ñu doon wax abu yaqub yusuf nu yaxya al qurashi al boyti al shafii maanaam abu yaqub yusuf nu yaxya moom moom euh, ndongab imam shafii la woon waaye maanaam buñ doon séddoo mazhabu imam shafii eh, ku nekk war cee jël cëram moom abu yaqub yusuf nu yaxya al boyti mi ku ci am cër bu mag a mag a mag a mag la ndax ci ndongab imam shafii la ba pare gëmoon ko lool bëggoon ko lool ba pare xeexal mazhab bi ba pare dooleel mazhab bi ba pare liggéeyal li nga xamante ni moom mooy moom mooy mazhab bi nekkoon imam bu mag moom it eh, dafa bokk ci borom xam-xam ñoo ni dañ ko fitnaloon dañ dafa bokkoon ci ñi fitnaaloon ci ci fitnatu xalqul quran ñi nga xamante ni vraiment tegoon nañ leen fitna ci masala bi ñu tuddee masalatu xalqul quran ñu tëj ko ci lu yàgg tëj ko ci ab diir bu yàgg mu tëj ci kaso bi lu lu lu yàgg sax ba sax ci kaso bi la deewee li gënoon li gënoon a xorom nag te yéemu woon ci ay mbiram nettali nañ ni lay saat moom chaque ajjuma chaque ajjuma ci kaso bi donte ñu ngi ko tëj ci kaso bi lu yàgg waaye chaque ajjuma da daan daan sangu sol yéreem wa jël wàcce jël waaj wàcce waaj waaj wàccaayam euh, daal di daal di ne day dem julli ji bu nee na bu doxee ñëw ba ci sa jaam bi maanaam ki ki ki garde kaso bi waaj ne ko yow yow foo jëm mu ne ko man damay julli ji waaye ki ne ko waay demal toogi waay nee nañ nee nañ loolu la daan def chaque àjjuma loolu la daan def ba keroog nu mu faatoo ndax da doon wax ni loolu mooy li nga xamante ni moo dal xelam te loolu mooy li nga xamante ni su ko defee jël na responsabilité am te wàccewu yoon ci digganteem ak boromam. voilà gis nga ñii nag ay boroomi xam-xam la ñi nga xamante ni vraiment euh, partagé wuñ seen dundu partagé wuñ seen xam-xam ci ay livres yu ñuy jàng waaye seen xam-xam dañ ko partagé ci ay dundu. ay dund yi nga xamante ak ay yar yi nga xamante ne vraiment nit ñi dañuy mën a ñëw niituwaat ci seen ginnaaw jaar ci seenu yoon euh, bénéficer wu ci seenu leer ak ci seen dundin même bu fekkee gisuñu seeni mbind waaye aussi ci xarnu saalis boobu aussi mën nga fa gis Abu Suleyman Daawud al-Zahiri nga xamante ne moom mooy moom moo sos lu ñuy tuddee mazhabu zahiriya nekkoon aussi borom xam-xam moom it aussi amoon na ay mbind yi nga xamante ne nettali nañ ko lu mel ni que lu mel ni ki ibtaalul qiyaas xam nga ibtaalul qiyaas moom soo ko déggee rek xam ne ma ngay ma ngay xeex ma ngay xuloo ma ngay weddi qiyaas waaw ci façon ba mu koy weddee nag ak na mu koy na koy daanelee ak ci uslubam ak na mu ko déggee wala loolu nag day enrichir li nga xamante ne moom mooy usulul fiq bi waaye aussi tamit euh, nettali nañ aussi ne aussi moom euh, amoon na ay taxawaay yu fees ci li nga xamante ne mooy xabarul waaxid mooy benn xadis xabarul waaxid mu nga xabar xadis bi xamante ne du mutawaatir ndax mën nañ ci dellu wala mun ci dellu ndax mën na nekk delluwaay ci sharia wala mënut a nekk delluwaay sharia voilà foofu aussi tamit gis nga foofu moom contraire bi day dooleel mazhabam parce que zahiri yi te ñoom dañu gëm texte yi dañu gëm xadis yi dañ ciy cramponné bu baax mais aussi tamit ñoom suñ koy dooleel aussi tamit suñ koy layal da nga ciy gis doole ju mat sëkk parce que foofu moom mooy seen kattan mooy seen mooy seen mooy seen base xabaru waa mooy nafs voilà nga gis doomam aussi Abou Bakr Mouhamad ibn Daoud az-Zahiri moom it moom it aussi amoon na ay amoon na ay participation yu mu def ci usulul fiqh yu mel ni al usul ila maarifati usul al wusul ila maarifati usulul fiqh aussi moom it moom it fësal nañ ay wax ak ñeneen borom xam-xam mais comme duñ mën a dañuy dañuy dañuy tënk duñ mën a tudd ñëpp et puis nekkul ne aussi dañuy woote ne ñëpp lañ mën a maîtriser si jamono jooju mais dañuy xool for rek pour jëmmal dara kon loolu mooy xarnu saalis bi xarnu saalis bi li ci gën a fees daal mooy dara dara ràññeeku wu ci ku ci am maktab wala am mbind mi nga xamante ni nit ñi mën nañ tey tey ci seen loxo donc ñu ci mën a am rek mooy ay mbir yi nga xamante ni borom xam-xam yi ñoo ko nekk li wàcc ginnaaw ne diw jaaroon na fi lii la fi waxoon ci ay wax wala lii bindoon na ko wala bindoon na ci masala tel donc boo ñëwee ci passé xarnu saalis bi nga ñëw ci ci gàttal ci xarnu raabia bi <clears throat> da ngay gis ne xarnu raabia bi foofu aussi fiq bi usulul fiq bi aussi tamit foofu euh, moo ngi commencé nag di jëm kaw ci jamono imam Shafii la soso jamono saalis bi nit ñu ngi koy mu ngi commencé di raam mais euh, xarnu xarnu xarnu raabe bi fiq bi mu ngi commencé nag di bu doon xale la nee nañ mi ngi commencé di jàng dox wala mu ngi commencé sax ñu am ay taxawaay di jóg xarnu xarnu raabe bi usul fiq ci lan la gën a ràññeekoo mooy mu ngi commencé nag di am tuuti indépendance ak fiq <coughs> ndax bu njëkk ba ñi ci ñi ci bindoon lañ ci doon bind lañ doon bind ci usulul fiq dañ ko doon dañ ko ci dañ dañ ko doon dëgërloo ak di ko booleel ak fiq lu bëree bëri ay masaayil fiq yu bëri bëri bëri nga xamante ni daanaka booy booy liir seenu mbind sax wala booy booy liir seen wax da ngay gis ni daanaka doo mën a ràññee fiq bi ak ak ak da ngay jàmm ne daanaka téere fiq la mais ci xarnu raabe bi da ngay gis ni usulul fiq bi mu ngi commencé di détaché wu mu ngi commencé aussi di sori tuuti ak la nga xamante ne mooy fiq bi voilà euh, foofu aussi tamit da ngay gis ni euh, usul fiq bi mu ngi commencé di di mat tuuti parce que fële benn masala lañ doon benn xabarul waaxid wala ibtaalul qiyaas wala xujjatul ijma mais fii da ngay gis ni fiq bi mu ngi commencé di jël ay mawduaat di ko traité du benn mawdo lay jël mais fi usul fiqh bi mu commencé di di traité ay ay mbooloo mawdo donte ko matul mi mu ngi commencé di traité nga gis benn borom xam-xam commencé di traité ay ay ay ay cinq masala wala six wala dix ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy usulul fiqh waaye aussi tamit si jamono jooju quatrième siècle bi aussi si la école yi commencé feeñ ñu ñuy tuddee <coughs> ci wàllu manhaj ci wala mbindin ci wàllu mbindin ñu ñuy tuddee manhajul manhajul fuqaha ak ñi nga xamante ni mooy manhajul mut euh, manhajul mutakallimin maanaam maanaam manhajul fuqaha mooy mooy mbind mi nga xamante ni daanaka ñi ciy bind ci usulul fiqh dañ koy binde selon ci école Abu Hanifa maanaam jël jël jël jël li nga xamante ni mooy mooy masala mi jël li nga xamante ni mooy fara bi mooy benn benn benn masala fiqh yee ñu génnee ci seen aslu aslul mazhab contraire ak ñi nga xamante ne mooy mazhabul mutakallimin nga xamante ne ñoom qaayida bi kese la ñuy diraasa duñ ko boole ak li nga xamante ne mooy faro qaayida bi kese jële tàmbalee ko ci lugal arabia wala tàmbalee ko ci nafsu nafsu sharia wala tàmbalee ko ci dilaalaatul alfaaz yi ba génnee ci ab qaayida mais duñ dem jël seen mbindum boroomi xam-xam dem euh, dem manipule manipuler wala du ma wax sa manipuler dem jéem jéem jéem génne génne ci ab qaayida kon ci jamono jooju ñaari ñaari école yooyu commencé feeñ ñi gën a fës ci jamono xarnu raabe boobu euh, bokk na ci ku mel ni ki imam imam aljubaayi abu ali aljubaayi abu ali aljubaayi mooy abu ali muhammad ibn abdul wahab aljubaayi noonu la noonu la tudd muhammad ibn abdul wahab aljubaayi moom mooy moom la ñuy askaneloo kuréel gi ñuy tuddee kuréel aljubaayi ya moom nag euh, moom moo nekk sëriñu wala mom mo nekkon serignu imam abul hasan al ashari ndax lutax ñu ne mom mo nekkon imam abul hasan al mo nekkon serignu imam abul hasan al ashari moy ne mom moko ko nàmpataloon yar ko ci mazhabul i'tizal manam ci ci ci ci mazhabul i'tizal mu def fa danaka 40 ans ba pare nekkul won sëriñam kesse mais mu nekkon bàyyi xam bàyyi jidlem parce que mom mo yoron yaayam wala ba daanaka quarante ans nga xamante ni yàgg na si dund doomu aadama ba dund nit ki dund imam bi ba keroog muy génn di gis li nga xamante ni moom mooy beneen mazhab bu bees bu bokkut ak mazhabul i'tizal <coughs> Abu Ali al Jubbaay yi mii nag nee nañ nit ku nit ku ñoroonum xel la nit ku xel mu rëyoon lool waaw euh, nee nañ sax su fekkente ni euh, xam-xamu usulul fiqh nooy na déedéet xam a ilmul kalaam nooy na yomb euh, jàppandi imam abul imam abu ali al jubba yi mii moom moo ko liggéey moom moo ko nooyal maanaam su ak weñ la moo ko nooyal ba mu nooy nepp ba ilmul kalaam ku nekk mën koo jëfandikoo kon kii boroom xam-xam bu bu bu mag la woon wala boroom xam-xam kalaam yi bu mag la woon voilà moom nag amoon na amoon na amoon na am mbind mu ñuy tuddee al usul kitaabul usul amoon na seen téere bu ñuy tuddee kitaabul ishihaad yooyu aussi tamit euh, participation moom la ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy usulul fiq bokk na ci borom xam-xam yooyu aussi imaamul jafaaf ci na boobu aussi moom it euh, feeñoon na euh, nekkoon ab xanafi bindoon téere bu ñu tuddee ahkaamul quraan ahkaamul quraan nag téere bu am am solo la ndax téere la bi moom téere tafsir la mais tafsir la bi nga xamante ne day fay wuute ak yeneen tafasir yi ndax moom euh, du def tafsir comme niñ tafsiree nii euh, niñ liñ miinee tafsir mais tafsiru ayaatul ahkam ayat yi nga xamante ni ci ay atte attey attey ay atte ahkam ayat yooyu lay tafsir waaw bu ñëwee di ko tafsir noonu du ñëw rek di ñëw rek di ñëw rek di topp baat yi di dem noonu déedéet mais day ñëw indi indi ayaat yi ba pare mu indi mu istimbaat ay ay ay xukmu istimbaate ay xukmu mu indi aqwaalu ahlul istiqbaalu ulama yi mu munaqasha leen mu tarjeex wala mu dooleel ci li nga xamante ne mooy mazhabu abu abu xanifa téere boobu nag bu ñu ko taalifee ba pare après nag si la ñeneen ñi commencé ñëwaat ci ginnaawam di def ay yeneen ahadis di def comme moom comme ay ahkaamu ahkaam ahkaamul quran li ibnul arabi ahkaamul quran lil bay lil bayhaqi ak yeneen yi nga xamante ne aussi jéem nañ def comme li nga xamante ne moom la jasaas def jasaas nag moom bi muy bi muy bind ahkaamul quran boobu dafa bindaale beneen téere bu mu tuddee al al al fusul fil usul nga xamante ne ab muqaddima la ko def nga xamante ne euh, muqaddima la ko def ci euh, lay taayal ko ci li nga xamante ne moom mooy téere boobu waaye ngay mën a jël ci ci xarnu boobu comme nga mën a jël aussi tamit ci téere ci ci jamono jooju aussi Abu Bakrin al Abhari Abu Bakrin al Abhari ci xarnu xarnu xarnu xarnu rabia boobu moom aussi Euh, bind benn te bindoon bindoon ci lu ñu tuddee ijmaaw ahlil medina loolu xam nga aussi tamit masala usuliya la voilà masala usuli bi nga xamante ne ab maliki moom mooy moom moo koy bind di dooleel di dooleel di dooleel gisinam bii ci usulul fiq wala di dooleel gisinu école am ci ci ci ci masala mii nii Abu Bakr ne al Abahari nekkoon ab maliki bu mag a mag a mag waa moom nag Aboubacar al Abhari moom mooy doy na rek ci tiitar ni moom moo nekkoon sëriñu euh, imam Daara Qutni Daara Qutni nekkoon borom xam-xam bu mag borom xam-xam wa ilal bu mag a mag a mag a mag borom xam-xam xadis borom xam-xam wa ilal Aboubacar al Abhari mi moo nekkoon sëriñam waaye abu Aboubacar al Abhari moom ñoo nekkoon kon sëriñu tamit Ibnul Qassar moom dinañ si ñëw léegi أبو بكر أبو بكر أبو بكر الأبهري مهم بن إدماء أهل المدينة بن تمت الأصول في الفصول ابن القصار نكون برم خم خم مالكي أصيب مك مهم بن دون تير بن يوه مقدمة في أصول الفقه تير بو مقدمة في أصول الفقه تير بو مهم ابن القصار من كون من كل من كل من كل عند الليل من كل عند دفكو بين إنتروديكسون بين مقدمة تبين تير بن دون بند تدكوا عيون الأدلة في إيضاح الملة عيون الأدلة في إيداح الملة تيري بوبو بنك تيري مالكي بو أم صلو بو أم أم صلو تيري بو يوم بو, بو, بو رفت أسلو بو, بو, بو, بو نرمال أه، بو صاري تلنغا حمان تدي موي أي أفير خوتل أك أي وخي نغا حمان تدي غير ما دي, دي تحميد كي خوا, خوا تايل ولكن بيم كوي بيندنك سيلا سيلا سيلا دفع مقدمة بوبو تدي تلوم تلا دفع مقدمة بوبو نغا حمان تدي موي مقدمة في أصول الفقه ولا تيري بو أم, أم صلو لغسين abu bakrin al baqilaani abu bakrin al baqilaani nekkoon borom xam-xam bu mag a mag a mag a mag a mag vraiment borom xam-xamu lislaam bu maga mag nga xamante ni moom nag moom bi mu ñëwee nag daanaka mën nañ wax ni moom li mu yokk ci usulul fiq moom abu bakrin al abhari daanaka bi mu ñëwee dafa yokk ci usulul fiq yokk bi nga xamante ni daanaka ñëpp ñoom ñoo ko yëkk ñëpp ñoom ñoo ko yëg moo boo tax sax euh, yenn borom xam-xam yi ci ginnaaw ni abubakarinil abubakarinil baqillaani su fekkee <coughs> su fekkee imaamu Shafii am na mérite ci ki nga xamante ni moom moo moom moo moom moo moom moo sos moom moo tëral xam-xam bi sos ko euh, xàll euh, xàll yoon wi waa imaam Abu Bakr imaam euh, Abu Bakr al-Baqillaani mooy ki nga xamante ni moo yëkkati njënd yi mooy ki nga xamante ni moo yëkkati soror mooy ki nga xamante ni moo moo yëkkati tabax bi moo yëkkati moo yëkkati bâtiment bi mooy ki nga xamante ni moom moo moom moo moom moo moo continuer liggéey bi ba fi nga xamante ne après fi la àgg moom Abu Bakr al-Baqillaani parce que dafa bind ay téere yu am solo téere yi nga xamante ne al-Muqni بين التقريب والإرشاد تقريب والإرشاد هناك نقطتين تقريب الإرشاد الكبير تقريب الإرشاد الأوسط وتقريب الإرشاد الصغير تقريب الإرشاد الصغير نيار يبدو دانيو رير نيت يب صاح دانيو رير بو ماك كبير بي اك اوسط بي اك صغير بي لي تي جوتا ام نيغا خامتاني موم لا نتي واخا موم تقريب الارشاد الصغير تقريب الارشاد الصغير بوب لي ني موم لا موم لا نجوتو موم لا نجوتو غيس تي benn sulus bi la sulus bi mooy lu tolloog ci ay ay ay ay six ay six mu jadd ay six mu jallad moom lañ gis ci taqrib wal irsaad asagir te foofu xam-xam bu rëy moom moo fa nekk kon su fekkonte ni gis nañ awsat bi nan lay toll kon su fekkonte ni gis nañ kabir bi nan lay toll mu liggéey ci liggéey bu rëy moom <coughs> ki nga xamante ni moom mooy euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, qaadi Abu Bakr al-Baqilaani nekkoon boroom xam-xamu lislaam bu mag a mag a mag a mag a mag a mag moom sax la ñu tuddee imaamu ahlu sunna imaam ibnu taymiya rahimahullah respecté ko woon lool fonkoon ko lool ba pare daan na wax ne sax moom bokk na ci euh, borom xam-xam yi borom xam-xamu ahlil yi gën maanaam yi nga xamante ni vraiment ñi ci ñi ci gën ci ñi nga xamante ni dañoo inchiral ci ilmul kalaam moom Abu Bakr al-Baqilaani si la bokkoon yàlla na ko yàlla. yërëm te fay ko te gërëm ko ñu tëj ñu tëjee ko ci xarnu saalis bi ak qaadi abdul jabbar qaadi abdul jabbar moom ab mu'tazili la woon moom moo téere moom moo bind téere mu ñuy wax al omat fi usulul fiqh qaadi abdul jabbar moom aussi borom xam-xam bu mag la woon téereem aussi nekk ci delluwaay yi waaye moom aussi tamit euh, mu'tazili la woon mu'tazili yi nag ñoom dañoo feeñ bu baax a baax ci ci usulul fiq li tax ñu feeñ ci nag nekkul ñi ñoom dañ cee feeñoon pour dimbali ab mazhab parce que usulul fiq li ñu wax comme li ñu wax mu usulul fiq maanaam xam-xam la bi nga xamante ni day dimbali day dimbali fiq mais ñoom ñoom amuñu woon fiq mais ilmul kalaam lañu amoon mais dañu gis ni ñoom ni ñuy traité ilmul kalaam dafa méngoo lool wala dafa nuroo wala dañu gis ni saaxa boobu maanaam terrain boobu dafa méngoo ak usulul fiq la ñuy wax ak li usulul fiq yi daanaka di wax dañu xaw dañu xaw nuroo wala euh, jege nañ moo tax ñoom foofu dañ dañuy ñëw wàllu yaan si si terrain boobu ba pare dafa liggéey nag liggéey yu rëy seen seen xilaafaat feeñ bu baax seen participation feeñ bu baax ci usulul fiq ci boppam da ngay ñëw ci masail yu bëri dangay fekk mu'tazila yi seen i seen seen gisin ci usul fiqh ci taarifaat yi ni ñi taarifee ni tarif bi tarif bi tarif mu'tazili la wala ngay ñëw ci masaa'il nga fekk masaa'il nga xamanteni ni ñom usulul fi ñom mu'tazili dañ ci am dañ ci am gisin comme ci al mubah al mubah min ash shar' aw laysa min ash ne yi soof da fay gis Abu Abdullah al ka'bi da ko fay fekk nga ñëw ci al waajibul mukhayyar da nga fay fekk mu'tazila yi aussi seen ak seen seen participation ak seen i lay ak seen i xujja voilà léegi nag euh, ki nga xamante ne moom mooy qaadi Abdul Jabbar kenn la woon ci mu'tazila yi nga xamante ni moom aussi tamit euh, ci ci maanaam ci moom ci moom ci moom ci ci moom ci jëmmam wala ci ci moom la la la la ñu feeñalee aussi yeneen mu'tazila yi seen xalaat ak seen gisin yi leen jiitu woon comme comme comme niñ ko waxee comme abu ishaq sayar nazam ay ay ay waxam gis ñoom moo xaadi abdou jabar mi daanaka moom moo moom moo sàmm wax ñu fa nekkoon léegi nag bi mu ko sàmmee nag moom it ay ndongaam ndongaam yooyu bi ñëwee ci ginnaawam jël téere boobu aussi tamit te ndongaam yooyu ñoom ñoom ndongo yooyu seeni mbind nekk delluwaay ndongo yooyu ku mel ni xaadi abul xuseyn bind kitaabul mu'tamad moom bi mu ñëwee aussi tamit sukkandiku si téere boobu ci téeréem boobu moom qaadi abul xuseyn téeréem boobu nekk marja après ci usulul fiqh à à travers qaadi abul xuseyn nag si la qaaraaw mu'tazila yi ni commencé ci la ci la taxee nag ci téere usulul fiqh yi ba ci suñu jamono ji ni kon mbokk yi ci ci gàttal tey mënuñoo jeexal li nga xamante ne moom mooy moom mooy évolution wa ilmu usulul fiqh abra al usul wal azman mënuñu ko jeexal ci tey kon comme ñu ngi ci qarnu sa qarnu bi ak gis nañ qarnu rabia bi Euh, yan boroom xam-xam ñoo fa nekk ñan ñoo fa bind lan lañ feeñ xam xanu rabe bi euh, lan la lan mooy xusuusiyaam ak ay mumayizaatam voilà wala ko jiitu gis nañ xarnu saalis bi ak njalbeenu xarnu raab xarnu xarnu xarnu saani bi kon dañuy yemale fii jotaay bi incha allahu taala euh, ba beneen jamono incha allah ñu continuer ak xarnu saalis bi gis aussi tamit usulul fiq bi foofu lan moo fa beesaat ak ban yoon la jëlaat ak école yi nu mu nu mu judduwaate ci ginnaawam ak usul fiq bi mu demee ba nga xamante ni mat na waaw bi mu demee ba nga xamante ni mat na ci xarnu saabia bi ndax dollante amaat na ci déedéet dollante amu ci waaye li ci amaat moom mooy ay ixtisaaraat ay suruux suruux yooyu ñan ñoo ci nekkoon suruux ya après yan lañ def téere manhaj après yan lañ def téere muqararaat ci jaamiaat yi ak ci école yi incha allah xam naa ne loolu mooy nekk suñu jotaay yi di ñëw mu ñu ko mayee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa